mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di euh, tàmbali suñu kàddu di tàmbali suñu kàddu ci remercier bu baax Sococim mi nga xamante ni moo ñu dalal tey ngir mën a lakk drogue bi ñu jàpp ci biir région Dakar di remercier bu baax monsieur le directeur général di teg cant boobu ci loxo secrétaire général waaye ci ñi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam te bi ñu ñëwee ci suba ak léegi ñu ànd ak ñun liggéey bi ñu gis ci cawarte bu mat sëkk waaye gis tamit teraanga boo xamante ni yaatal ngeen ñu ko fii ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi waaye tamit ci ànd ak ñun liggéey bi te gis nañ ni xañ na seen ay kilifa sant nañ leen ko waaye gis nañ loxo bi ngeen ci dugal ak xol bi ngeen ko defee loolu ñu ngi leen ci daajëfal bu baax di sant également journaliste yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo fi teew euh, di rafetlu seen euh, ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy xeex li jëm ci wàllu drogue mu doon loo xamante ni baaxul ci koom-koomu réew waaye baaxul ci wér-gu-yaramu doomu aadama léegi bi ñu nekkee fële ci wetu four bi ñu doon lakkee trop bi gis nañ ci présentation bi commissaire bi nga xamante ni moom mooy kat ndongo alkaati yi war a dem xeex loolu bi ñu leeral li muy def ci yaramu doomu aadama drogue boo koy day mel ni lu neex la wala loo xamante ni am na njariñ waaye ca mujj ga dina yàq sa xel dina yàq sa yaram te dina yàq tamit askan te li ci gën a yéeme mooy ki koy jël yaakaar ni amal na ko njariñ bu ñu doxee tuuti dinañ gis li muy def ci moom waaye tamit dinañ gis li muy def ci koomu réew ndax day dugal loo xamante ni dañuy yaakaar ni am na njariñ waaye buñ koy yi ci circuit économique yi wala muy yàq yeneen domaine yoo xamante ni mën na laal sécurité yi wala mën na laal social wala sax mën na laal domaine sport bi dañuy gis ni c'est trop xeex la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk le 26 juin nag dafa nekk ci àdduna bi yëpp journée boo xamante ni journée internationale de lutte contre la drogue la saa yu dikkee ñu ci def de façon symbolique ay cérémonie yoo xam ni dañuy mandargal di lakk quantité drogue yi nga xamante ni jàpp nañ ko ci réew mi fii ci Dakar bu ñu seetloo li ñu jàpp ci trop mat na plus de six tonnes ci li ñuy wax yàmba six tonnes ku ne xamante ni xam na ni du lu tuuti bu dee ci wàllu cocaïne wala héroïne lakk dinañ ci lakk léegi loo xamante ni ëpp na cinq kilogrammes alors euh, loolu nag bu fekkente ni Dakar kese lañu gis quantité yu toll noonu ñu koy lakk ci loolu nga xamante ni moom mooy drogue bu ñu demee ci yeneen région yi compta comptabiliser guñu li nga xamante ni moom lañ fa a jël mooy que ni euh, force de défense et de sécurité yi muy police gendarmerie l'armée bi ak douane seen liggéey rafet na ñu ngi leen di jaajëfal di leen gàcce ngalaama ci taxaw bi ñu taxaw waaye loolu benn pàcc la ci xeex jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy trafiqué am na njariñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo ñu yee leen ba ñu bañ ko def am na njëriñ waaye dafa doon liggéey koo xam ni ku nekk war na ci dugal loxoom ba bu ëllëgee lii ñuy jàpp sax dootul yi ndax ñiy trafiqué dinañ dem defi leneen. waaye ñi nga xamante ni tamit dinañ ko jëfandikoo dinañ deltu ginnaaw ba bu fekkente ni tamit dinañ jàpp benn benn loolu sax gënul li gën mooy kenn ñu kenn bañ utiliser trop mais ñu wàññi ko ba nga xamante ni presque ñi nga ñi ñi ñuy jàpp ci nombre daanaka day doon nombre boo xamante ni lu insignifiant la loolu nag mooy kaddu gi euh, Sénégal nag dafa am benn plan bu ñuy wax plan national stratégique de lutte contre la drogue mu nekk deux mille vingt et un président joxe ci ay ndigal ñëpp ñoo xamante ni dañuy intervenir di ànd ak ñun liggéey bi ngir xeex li jëm ci wàllu trafic de drogue ñu boole leen ci bi ñu nekkee di sumb waxtaan bi def ci ay lël yu yaatu xool document bi nga xamante ni waajal nañ ko te suñ ko approuvé dafay am ay banqaas yu muy sukkandiku ngir ñu gën a mën a wéyal liggéey bi banqaas yi ci nekk yépp naam am na njariñ waaye banqaas bi nga xamante ni moo ci ëpp solo mooy banqaasu yeete loolu nag dama ci profito pour jaajëfal waa société civile ndaxte ay nit la ñoo xamante ni euh, dañu jël seen xol jël seen xel jël seen temps nga xam ne moo gën a précieux ci doomu aadama lépp jëmale ko ci liggéey li nga xamante ni mooy lutte contre la drop drogue ñëpp xam nañ ko du lu baax waaye li ma ko fàttalee léegi ñi koy jëfandikoo ci njëlbeen gi dañuy yaakaar ni amal na leen njëriñ ci cawarte wala ci sax yaakaar ni day yokk xel waaye bu ñu doxee tuuti dañuy gis ne dina yàq sa xel dina yàq sa yaram te li gën a yéeme mooy sa famille dootu la mën a jëriñootoo waaye sa askan dootu la mën a jëriñootoo moo tax woote bi nga xamante ni ñi ngi kay bokk di woote te amul sikk nii ñëpp dinañ ci bokk ànd gouvernement bi am loo xamante ni daf ci taxaw président de la république jox ci instruction mooy nañu fexe ba ñu ñëpp ñu ànd ci lutte boobu à travers la sensibilisation à travers yeete boobu ndaw ñi ñu gën leen xamal jàngoro ji nga xamante ni drogue dina ko euh, jur waaye tamit ñu gën leen yee ci li nga xamante ni mooy ñawteef yi drogue mën a yóbbu doomu aadama ngir mu jëfe ko ndax lépp lu lay tàqaleeg sa sago day doon loo xamante ni ni ko diine yi yëpp jàngalee xamee ko ndey ñawteef la loolu mooy li nga xamante ni moo doon wax di ma bëggoon séddoo ak yéen jàllale ko di leen sant di leen gërëm te duma daaneel sama kaddu te ñëwaatuma ci sant bu baax ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi ndaxte li ñuy wax fii bu mënee yegg ba touché ñi nga xamante ni mooy ndaw ñi ak mag ñi yéen yéen a ko waral ñu ngi leen di jaajëfal jërëjëf